jërë ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw bu ñu leen di yu dal leen ak jàmm ci seeni actualité du jour di xibaar yi gën a fës ci internet bi di xibaar dañ koy dooree ak mbiri actrice bile di euh, Marème Dial turam dëgg di Halima Gadji moom mi la nag daal dinay fësal lenn si ak dundam rawatina nag lii di enfance am mu ngi kon ba muy nekk xale ak lu méttee métti li nga xamante ni dund na ko bokk na ci handicap bi mu amee muy maanaam dër bi nga xamante ni kon daf ko sonal lool ak ni mu ko dundee ba muy nekk xale ñu di ko si ñaawal ba tax na muy amee ay traumatisme ak yu ni mel moom mi la di Halima Gadji nag daal wax ni kon dafa xeex ba sonn ci addinaam ngir mën a egsi fi mu egsi ndax handicap bile am na nu mu doon demee rek daf koy freiné ci addinaam waaye gëm boppam kon moo tax mu daal di egsi file leneen loo xamante ne nag xamle na ko moom ndaw si lee nee dañu ko arnaqué ci loo xamante nag. buñ ko doon xayma ci ay koppar war naa mat 40 millions wala sax mu daal di koy euh, ëpp tuuti moom Halima Gadji nag loolee ñu ngi ko ko defee foofee ca diwaanu Abidjan ni nga xamante ne nag fa la nekkoon temps yee ca ginnaaw di fa liggéey ak yeneen contrat yoo xamante ne moom la fa amoon moom mi la daal di ne xam ne ni kon bokk na ci si la tax sax dépression yi mu mujjee am mooy xaalis boobee kon ñu daal di koy euh, arnaqué la mu xam xamle mooy bokk na ci li gën a tax nag ñu daal di jaar ci kawam li li mu amul ab manager wala agent ba tax na kon fi mu ne nii euh, ci foofee nga xamante ne moom mooy Abidjan ca Côte d'Ivoire contrat moom moo ko fa yóbbu euh, muy ab boîte de production nee nag ñoom la signeel ngir daal di liggéey liggéey boobee nag dooleem yépp ak xelam moom la ci def moom Halima Gadji daal di koy def na mu waree waaye nag malheureusement nee na dañu ko arnaqué boîte de production ba mu nekkoon bokk ci nag li nga xamante ne moom mooy collaboration yi mu jotoon a def euh, série muy maanaam wàllub euh, actrice bi nga xamante ne moom lañ ko xamee ndax def na série bu ñuy wax le futur est à nous def na itam publicité ngir douze marques de basin ak benn service transfert d'argent ak yeneen ak yeneen euh, nee na nag aventure bi lee aventure bu triste la boo xamante ne nii dund na ko ba tax na kon bokk na ci li gën tax li nga xamante ne kon moom mooy dépression yi ñu ko mujjee di saaga ba ñëpp jaaxle ci moom loolee moom moo ko waral ndax moom Marème Dial nee na xaalis bu baree bari moom la daal di ñàkk ñu wax ci leneen ci lay euh, xibaar jëmale kon ci li xew foofee ca diwaanu euh, Ndufuk jëmale nag ci ndongo daara bii di M Samb nga xamante ni ñu ko daal di faat fekk ko ñu suul ko te kiñ ci teg euh, fi ne nii ay gët joxoñ ko ci baaraamu tuuma moom may moroomu taalibeem bi lee di wécc turu TD fi mu ne nii nag résultat autopsie daal di lañ koy euh, fësal buñ sukkandikoo ci journal bi di euh, l'observateur euh, lu topp si ba nag la moo xam ne mooy moom xale bu góor bi di M Samb te am juróom-benni at am ngi gaañu gannaaw bu mu tukkee ci ab asphyxie mécanique maanaam daal lu mel dañ ko daal di xoj ba mu ñàkk bakkenam yooyu les résultat nag daal dinay waroo trop ak uh, li nga xamante ni moom mooy version uh, bi mu joxee moom mi li di uh, TD di taalibe bi nga xamante ni kon ma ngay am fukki at ak benn ca lañu xamle moom mi li nag ci ab déclaration gannaaw bañ ko defalee interrogatoire ci commissariat central bu Thiès la mu xamaloon enquêteurs yi mooy dafa jël ab yat daal di koy dóor kii di M Samb ngir nag daal di koy xiirtal ci mu jàng kon ci àllu beem noonee nee dem daal di ko fay bàyyi kon laata rek ab diir mu dellu si waat ba mu ñëwee nag di ko seet ngir mu reer ci la fekk ni moom la di M Sam ñàkk na bàkkenam loolee la expliqué ba noppi nag di xamle ni kon ca gannaaw gala dellu ca daara ja ut appel daa dee dem ba ci benn wetub jàkka boo xamante ni soriwul daara bi lee daa di gas jël nag ki nga xamante ne moom moo di M Sam dugal ko ca kàmb ga daa dee delluwaat dem ca daara ja enquête bi nag jamono ji de mu ngay wéy ba tey ngir leeral dëgg itam ana lan mooy version bu baax bi jëmale ci faatu kii di euh, M sàmb ñu wax ci leneen ci yële xibaar ba tey xewee foofee ca diwaanu waa Ngunjaan foofu leen nag kon lycée ba fi mu ne nii Jinne mun ni ki démb moom moo daal di gane si ñi nga xamante ne ñoom ñoo di xale yu jigéen yi ba tax na nag ci diggante kon mardi jàpp démb mercredi lu toll ci rek ñaar fukk si ay xale yu jigéen daal dina leen fay euh, daaneel buñ sukkandikoo ci li Dakar ak ju euh, fësal euh, ñoom ñi leen nag di xale yu jigéen yi lee phénomène Jinne boobu boobule Ah, moom moo daal di leen di seet si foofee ci lycée bu Ngoundiane waral ah, ñi nga xamante ni sax ñoom ñooy responsable école ba dañoo tiit ba jaaxle a ah, mujjee woon ak ñii di waa gendarmerie ngir ñu ñëw maîtriser situation bi ba noppi kon woo ay nitu diine ñu ñëw ca l'école ba daal di fay nag def ay ñaan ngir dàq kon lii di seytaan source bi leen nag Dakar Actu di xam ne ni itam nag cours yi dañ ko mujjee woon sax arrêté niki dem ngir nag calmer. situation bi le foofee ca lycée bu uh, Ngoundiane ñu woy ba tey ci a uh, xibaar wax ci la ca gën a fës nag te muy kon uh, doomu Sénégal bi di Sadio Mané ak gaañu gaañu ba mu am si ab omam li la nag niki dem ba tey débat ak coow lu rëy moom la daal di jur ci monde sportif bi waaye itam ci sénégalais yépp ndax tiitaange gi ñu am ci moom di Sadio Mané bañ a dem nag foofee ca coupe du monde ba ca Qatar la ca mujjee am ci ay xibaar nag mooy moom di Sadio Mané gannaaw ba médecin yu Bayern Munich yi daal di koy euh, consulter li nga xamante ni kon amu mooy match Bayern bi waram ci weekend bi moom mi lee doon tuccee mën a bokk ndax gaañu gaañu boobule ñu ngay woyal nag di def seen ay euh, analyse ngir mën a déterminer ndax lii di coupe du monde bi moom mi lee di Sadio Mané tànkam boobule may na ko mu dem ci am déet en attendant publication liste officielle gaynde Sénégal nag ya war a dem foofee ca Qatar ak kii di Aliou Cissé nga xamante ni niki suba la ko war a moom ak coupe staffam nag daal dinañu yónni kon benn ab médecin boo xamante ne nii niki tey jii daal dina jël vol ngir dem foofee ca Bayern xool yi Sadio Mané moom médecin boobule nag bokk ci fédération sénégalaise bu football dina mën a déterminer ndax doomu Sénégal bi lee dana mën a bokk ci bilépp jonganteem déet ñu wax ci leneen ci lay xibaar jëmale ci taskatu xibaar bi di Pape Alé Niang gannaaw ba ñu ko tegee loxo kon placé woon ko garde à vue fi ne nii nag kon ab dossier mu ngi nag compliqué moom mi nga xamante ne moom mooy Pape Alé Niang bokk na ci lu ñu teg ci ab ndoddam jamono ji divulgation information no rendue publique par l'autorité compétente de nature à nuire la défense nationale te mu jëm ci kon fësal ay xibaar yoo xamante ni njiit li ñoom ci seen bopp fësal luñu ko te mu mën a indil nag gàkk-gàkk li nga xamante ne moom mooy suñu kaarange réew bokk na ci itam li ñu koy toppee diffusion de fausses nouvelles ak yeneen chef d'accusation gannaaw nag ba ñu ko njëkkee placé en garde à vue moom Pape Alé Niang dafa bénéficier woon ci retour de parquet ak ki nga xamante ni nag moom moo di ab avocat maître Khoureyssi Ba daal di ne xam na ni kon a Alé Niang gannaaw ñaari guddi yoo xamante ni def na ko sa commissariat bu Ndakaaru fi mu ne nii nag daal di nañ koy yóbbu prison placé ko sous mandat de dépôt ki def li ni mel moom mooy juge deuxième cabinet bi di Mamadou Seck moom avocat bi di juge bi amul woon choix gannaaw rek li nga xamante ne nii moom la procureur bi jël laa di koy teg si ak ndoddam laata muy xam ne ni nag fi mu ne nii bu moyul rek moom Pape Alé lu toll ci juróom benn weer wala lu ko ëpp mën na ko tëdd ca kaso ba bu ñu deful mobilisation jëmale ci moom mbokk internet yi fi la ñu yem ak yéen tey seen actualité du jour jox leen di daje ëllëg ak jàmm si yeneen xibaar jaa jëf